six minutes la six minutes waaw mais bari na loo fa wax loo xam ne nii mësuma ko dégg nga wax ko mhm. ci euh, média média yi fii non man meluma comme Macky di dem fële di wax ay affaires yi non mais mais mais c'était intéressant laa la bëgg a wax c'était intéressant amuñu woon chance dugg ak yow foofu loolu la bëgg ah ba euh, euh, dama la dégg nga ne bu ñuy wax côté kuréel gi ngeen bëgg a tëral Mhm. di ngeen def le tout ba Macky Sall du dem conseil constitutionnel. tout à fait léegi da ragal bu demee conseil constitutionnel ñu valider troisième candidature bi en tant que docteur en droit lan ngay mhm. ragal foofu. non amul euh, amul ragal sax Macky bu demee conseil constitutionnel mais dañ koy valider déjà moom def na benn erreur de communication boo xam nit ñi bàyyiwuñ ci sax xel. Mm. parce que mm. ñoom ñoo ñuy wax nañ dem conseil constitutionnel nañ dem conseil di la ko wax chaque jour. nga xëy suba le vingt mars la woon. ay mhm. interview boobu ak l'Express. ne la question juridique est réglée. Mhm. donc yow doo doo dem conseil constitutionnel. yow président Macky Sall nee nga la question juridique est réglée. Mhm. donc xam nga li la conseil constitutionnel di wax. c'est un aveu. kon bu leen manipuler ñu ñu def li mu bëgg. no soxlawu leen manipuler li mu leen di def loolu la def. loolu c'est que soxlawul ma loolu soxlawul jàng droit Macky. Mm. li mu laaj waa conseil constitutionnel loolu la ñuy def ma yokk ci. ne Macky moom moo xalaat xalaat bi moo ko bindulu. boobu ak léegi yàggul sa fait juste sept ans droit dañ ne booy interpréter da ngay interpréter lu leerul est que lii dafa weex dafa gris walla dafa ñuul ngay interpréter léegi leerul yow mi bind nga ne da ngay leerlu nga dem laaj koo xam ne ba ngay bind ak ba ngay xalaat fekkew ko man ak yow ñu ak isaa mii ñu tëju ci néeg bind ne ñaari mandat affaire bi ci lay yem mënut mënatumaa am kenn mënatu fi def lu ëpp deux mandats Pape Matar moom mu ngi toog fële ñu pare génne ma woo Pape Matar nommé ko tagbal ko taggal ko robe bu rouge blanc bu rafet yooyu nga xam ne ci tubaab yi lañ ko jëlee di ko sol ci dëkk bu tàng bi suñu complexe foofu la jógee déjà hmm? <laughs> léegi Pape Moussa Pape Matar moom dañ koo woo ba ñuy waxtaan fekkewul ba ñuy xalaatu fekkewul ñu jël ko nommé ko di ko fay xaalis bu bari ne ko nag yow yaa dàq jàng droit ci Sénégal hmm. léegi li ma tëjoog yéen wax ko ñu génne ñun xam nañ ne leer na askan bi xam nañ ne leer na mais bi nga ci bëggee dugal njuuj njaaj nga ni ah non lii moom dafa xaw a flou ah. yow mi ko bindule yaa wax dafa flou de déjà yow mi bindulu boo bindoo ni dafa flou mooy nilaar nga yow mm-hmm. est-ce que Ismaïla Madior Fall nilaar la ci droit waxal ko lu nekk mais du nilaar du nilaar mm-hmm. donc yéen ñi tëju bind mu wóor leen ne leer na ngeen bëgg indi njuuj njaaj commencé naa non mais dafa xaw a léegi ngeen jëli Pape Matar bi nga xam ne moom mu nga woon Saalum xaw ma ngeen ngi néew ngeen ñëw pour wax ko mu rappeler leen yéen ba ngeen tëjoo la ngeen doon wax est-ce que ngeen situation bi. léegi conseil constitutionnel boo xam ñoom ñooy wax Macky Sall li Macky Sall bindoon ak li Ismaïla Madior Fall bindoon lan la Macky Sall bëggoon wax Macky Sall qu'est-ce que Macky Sall a voulu dire à Macky Sall qu'est-ce que Ismaïla Madior Fall a voulu dire en écrivant et en respectant les prescriptions du président. Macky Sall léegi comme nga da am ci moom confiance ban confiance ngay am ci moom foofu nag laa waxee ne du ñu dem conseil constitutionnel parce que xam nga man droit la mhm. man maa gën a jekk ci légalisme waaw droit bi article bi lii la wax mais fii benn légalisme du fi am parce que ki nga xam ne moom la ñu jox réew mi bu respecté wul charte réew mi réew mi amatul chart mhm. na ku nekk def lu la neex mhm. waaw su boobaa du xoje comme ni mu commencé nii. mais bu la neexee lan moo tax yow ngay ngay ngay respecté feu rouge lu tax. parce que dañ ko faa teg. parce que Sénégal ñoo dajaloo bind. ne feu bi bu rougé. yow Thioro doo jàll. loolu la bind. sénégalais yi ñoo daje référendum ne affaire bi mënoo def lu ëpp ñaari mandat kii moom parce que moo yor doole ji mu ne damay dem déposer ji par force. mu ngi lay jaay doole li taxoon nga tax ko def ko président bu ko sax respecté tey dëkk bi amatul yoon man maa leen ne président Macky Sall bu gàddee cartable am dem conseil constitutionnel. Hmm. bu ku mu neex bul fay impôt. Hmm. parce que dëkk bi amatul yoon waaw mais moom moo ñu fa yóbbu. ah désobéissance civile ngay woote kon finalement. mais hmm. te démb juróom da koo bañ fii. le fait que le président Macky Sall rassemble ses pièces dem conseil constitutionnel c'est une désobéissance merci beaucoup foofu laa yow. merci beaucoup mm-hmm. alors. Euh, maam Khady nañ ñëw ci la une. <laughs> bi wax de. Ah. tey waxoon ci affaire Idi bi dina am. non non fi mu ne nii wuy ma xam nga. leen ko rek que man bëggoon naa ko rek parce que wax lépp. Ah, bu mu ñëwaatee ñu àggalewaat. ah ma mayal maam Khady. mayal maam Khady.